mbokki Sénégal mbokki réew mi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 Eh, dama juddu fekk samay waajur di dund ci làmb muy lutte la lutte traditionnelle loolu ma ci dugal ci làmb parce que nee na la lutte traditionnelle mooy suñu sport national mooy suñu culture kon nag vraiment dama ko war a fonk ndax man je suis sénégalais te la lutte traditionnelle dafa am lu bëri loo xam ne daf koy daf koy indi fii ci Sénégal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 bon dama amul droit di tuuram parce que du tudd sama tuur kon awma droit di tudd tuuram mais xam naa ne li la mën a wax pour mu simple ñun ànduñu ànduñoo moom. yéen ñan. ñun ñun acteur lutte traditionnel. mais keroog promoteur yu bari ñëwoon nañ. pour yan promoteur kan ak kan kan. gisoon naa fa sum gis naa fa góor góor production